pour libérer les parcs à mazout sur la demande de la collectivité lébou et la direction générale des SNHLM fii dafa nekkoon dafa nekk tey terrain ba am tey privé la mu am occupation anarchique nag ba am tey dafa jéggi woon dayoo li mu meloon nag dafa jéggi woon dayoo poser ay problème sécurité poser ay problème mobilité poser ay problème sûreté pour poser vraiment ay problème salubrité moo tax Euh, nous avons opération pour vraiment libérer le site de deux hectares qui appartiennent aujourd'hui aux et à la communauté euh, opération est day continuer parce que l'occupation euh, anarchique nous continuer Dakar donc je l'ai autorités municipales cadre de vie pour opération orientation autour de donc euh, yàggoon nañ ko def mais comme déjà situation bi dafa nekk situation bu taxaw dañuy déglu kilifa yi ba xam euh, direction bi ñu joxe pour ñu mën a xam naka lañ ko taxaw côté boobu dama ci sori dañuy xaar euh, directive yi nga xamante ne maanaam mooy kilifa yi ba xam lan lañ ciy dogal parce que dafa nekk problème diplomatie te am nga tamit la libre circulation des populations ci biir espace CEDEAO dafa nekk ay convention te dañ ko ratifié loolu nag bu fekkante ne am na seen représentant diplomate yaa ngi fi lañ seet ñoom seen wàllu bopp yan décision yi ñuy jël pour jëm a xool naka la ñuy def régler problème boobu mais pour le moment man mënu ma ci avancé wu parce que problème question diplomatie la question sensible la dama ci sori mais ñuy xaar kilifa ba xam lan lañ ciy dogal ñu mën a xam lan lañ ciy